بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والله يا إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm yàlla na yàlla dolli seen jàmm dolli suñu jàmm waaye jàmm jooju yàlla na ko def ci Palestine yàlla doole leen mbokk yi ñu njëkkee ko ci benn télévision bu nekk ci réew Israël ñu koy tuddee canal 14 muy wane ne bu ñoom seeni jëwriñ bi seeni ministre yi yëngu ci wàllu geer bi yëpp daal dina ñuy toog di xalaat nag ban taxawaay lañ war a am loolu nag ñu ngi ci ànd ak seen premier ministre Netanyahu ban taxawaay lañ war a am ci gaaw nu mu gën a gaayee daal di fayu fayu bu metti ci kaw Iran li ci noonu tamit noonu eh, armée bi nga xam ne mooy armée yahut yi ma wàcc ngir song song bu yaatu réew mi nga xam ne mooy Iran niki noonu tamit ba léegi waa Iran ñoom wax nañu ne ñu ngi ak settantal gu mat sëkk ci taxaw ci mboolem yëngu-yëngu yi nga xamante ni mën na jóge ci Jordanie mi nga xam ne moo nekk ca wet ga te ñu jot na moom moom mën na yombalal Israël lii tax mu ñëw dal seen kaw ñu nag ñoom ñu ngi bàyyi xel Jordanie moomu ci bu jógee pour jéem a am benn benn ndimbal gu muy defal Israël ñoom dañ xam naka la taxawee ci wetam loolu nag benn agence presse maanaam benn kër yëngukaay xibaar bu ñu tudd wikaalatu mahrul iraniya moom moo ko fésal teewul nag wa Jordanie nee nañ am nañu métit lool ci gis bi Iran gis gi gisinu Iran ci ñoom ba tax na ñoom sax nag démb woo nañu ki nga xam ne mooy ambassade bu Iran pour mu leeral ci Iran taxawaay bi mu am ci ñoom ci tuumaal leen waaye teewul nag ñoom aussi tamit waa Jordanie démb def nañu ay taxawaay yu yu bañ yu bañ bu wér que Iran ay bombardement mën a jaare foofu di wëy ñoom nag ne lañ ci jublu woon mooy mën a wàññi li nga xam ne moom mooy xew-xew bi ak jafe-jafe yooyu ngir bañ ngir bëgg tamit ñoom it am kaaraange ci seen jaww moo waraloon ñoom tam ñu am taxawaay boobu loolu nag xaw ma nag bi yahut yi di tiim seeni mbokki arab ak jullit yi ñoom fa la ñu nekkoon ñooy naa fekk nga dem ci ministère des affaires étrangères bu Arabie Saoudite ñoom ña ngay fësal seen naqar ak seen jaaxle lool ci boobule béréb muy Proche-Orient muy diggante fi gox boobu ni jafe-jafe yi commencé digganti dem ak li mën a jur ci ay musiba ci mboolem ñi dëkke foofee nga xamante ni moom mooy gox boobu moo tax waaye waa Arabie Saoudite ña ngay wax ne nit ñi nañu gën a ànd ak seen sago te maytu yëf yi àgg foo xamante ni loxo dina dar gémmi xam naa loolu nag wax ju tardé la ci bés bu nekk ñun ne seen bët ne teggi Israël di rey ay xale di rey ay jigéen di màbbay hôpital te kàddu gi ni mel mëseesu ko dégg communication bi mëseesu ko génn ñoom itam booy jàpp naa fekk boo di ñoom tamit booy ba nga xam ne bul wàññeeku ba mukk ba mbokk yi gis nañu ab taxawaay boo xam ne Israël am na ko démb ci jéem a gàllankoor xeeti jum ak lakkataan yi nga xam ne Iran mu ko doon sànni seen réew moomu rawatina bi mu jubloo ci fi nga xam ne mooy seen assemblée bi muy kaniset bi foofu moom am nañu taxawaay ba benn ci jum yi Iran doon sànni wàccul ci assemblée bi te Iran tamit am na yu mu jubale woon foofu na Iran fi mu doon fi mu fi mu fi mu tëmbal démb ay jumam mooy fi nga xam ne fa la yi gën te Israël def ko fi mu tëmbalaat ay jumam mooy fi nga xamante ni fa la américains yi doon jaarale seeni ngànnaay ngir mu ñëw foofu bi nag fi mu ay jumam mu ngi jublu ci fi nga xam ne mooy assemblée ba waaye yàlla dogal na bu fee fi nga xam ne moom la Israël denc seeni ngànnaay foofu moom taal nañu ko ak fi nga xam ne fa ko américains yi doon andi waaye ba ñu yey jublu ca assemblée ba yooyu moom benn dalu ci yooyu moom dañ ko daal di gàllankoor ci kaw beneen wàll bi mooy gis nañu ñi nga xam ne moom mooy waa Israël démb ñu def benn daje donte nag ñu ko mais réunion interministérielle la maanaam ay jëwriñ ñu te tey liggéey ci wàllu kaaraange réew Israël wala kaaraange mbooloo yu xuuti ndax ñoom amuñu réew ñoom waxtaan nañ démb ba seet nag la ñuy songee Iran niki noonu tamit ñu ngi fàttali nit ñi ne Gaza muy Palestine tey la gën a jàkkuwanteeg musiba màmma kumba rayuk mbooloo ak kiifal goo xam ne kenn xamul fu mu jóge ba tax na démb nga xam ne moo tolloon ak téeméeri fan ak juróom-ñeent fukk ak benn taxut feebar yi fa daan tasaaroo di gën di wesaaroo ci ñi nga xam ne waaye daw làqu lañu xiif gaa ngi leen di alawtiku di daanaka seen biir yi dara nekkatu ci loolu lépp nag ànd ak baa ngi ne tekk di noppi bolo ci naaf fekk goo xam ne kenn xamul mu toll ba tax na ci càmmuñu Gaza ci diggante barki démb muy euh, wala bopp wala démb nemmeeku nañu fa ay musiba yoo xam ne kenn musu ko gis ba mburu mi rek ñuy jënd mu yomb ñu lool ci Sénégal ñu koy kaas ci diggante fanweer ak juróom ak ñeent fukk ñoom démb fësal nañu ne di nga am juróomi cycle maanaam lim bu a takku ngir doog ko am ministère de la santé bu Gaza ma ngay fësal di wax ni majji zaria muy reyu mbooloo yi Israël teg ci tànkam benn yoon ba lim ba ma ngi gën a alawtiku di gën a bari ci xale yaak jigéen ña rawatina ci wàllu ngaañ te wàllu blessé ak ñoo xam ne faatu nañ ba léegi lay màbb hôpital yi tamit ña nga ca ba léegi kon arrière ñu kon ñoo xam ne Israël ci jamono bi nga xam ne Iran mu ngi songoonte moom mu ngay wéyal politique am ba mu ngay wéyal li ñuy tuddee génocide c'est-à-dire que jéem a faagaagal aw askan ngir mën a jël seeni béréb nangu ko kon démb moom it ma nga ca loola. ba léegi lim ba ma ngay gën a alawtiku ci doomi palestinien yi ñàkk seen bakken ndax yegg na ci trente trois mille sept cent vingt neuf maanaam junni ak ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer ñaar fukk ak juróom-ñeent nga xam ñoo nekk waaye blessé kenn xam ñu toll donc kon daanaka dañ koy xayma ci soixante seize mille trois cent euh, soixante onze maanaam juróom-ñaar fukki junni ak euh, juróom-benn ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn dégg te démb Israël ay jumam ak ay diiram ak ay jamam jëmalewu ko lulul ci waaye daw làq yi nga xamante ne ñu ngi doon jéem a delluwaat ca ndey jooru Gaza pour dëkki fa ndax ñoom wàññi foofu gis nañ ne dal waaye foofu la doon jubale ay nga xam ne moom mooy ay ay jamam ak ay jumam ak ay musiba kon mu mel ni kon waa Gaza euh, ba léegi la ñu nekkoon ñoom ak Israël ña nga ca te mooy saa bu ñu reyee ay guuram mu jublu ci ay xale jublu ci ay jigéen ak di màbb ay hôpital yu kenn xamul nemmeeku nañu démb ay colon maanaam ay doomi Israël yoo xam ne ñu leen dëkkal ci bérébu Palestine ñu daal buur dugg ci jàkk ju sell soos ñuy tee almasjidul aqsa démb bañ fay dugg ñu ngi ànd ak kaaraange goo xam ne seen police moo leen ko defal ci beneen wàll yi gis nañu mujaahidoon ninga xam ne ñu ngi bokk katay bu shahdaawul aqsa ñoom it démb ñu bombardé ay lim ci ay matériel ak ay soldat Israël ñu ngi leen dóor roquette bi ñuy xawen loolu nag mu ngi am ci càmmuñu mu xaye mu nasiraat digg Gaza démb it gis nañu jàmmallo gu ànd ak jamanteg dóorantey balaki kobaraki jaaseeg lu ne lu waay xam dóor moroomam ci diggante yahut yi ak julit ñi loola it mu ngi am foofee nga xamante ni mu ngi ci càmmuñu naasira mu nekkoon xeex boo xam ne xeex bu tar la waa Hamas di fësal ci làmmi Moussa Abu Marzouk daan ne mboolem kayit wu ñu jébbaloon pour wàllu négociation bi delluwaat nañ leen ko ndax charte biñ leen ci wax lañu nangoogul te loolu mooy am pour que xeex bi arrêté faw yahut yi génn ci seen béréb ñi nga xam ñoom ñoo nekkoon daw làqu ci waay palestin delluwaat dellu siwaat loolu moom mooy jeexal xeex bi bu ko defee nag ñun ñu delloo leen ñuy jàpp waaye bu dul loolu xeeti kayit yi ñuy jéem jox nee na delluwaat nañ leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, waa na ñi ñiy taxawal négociation ful la mooy jaay Dakar looluy dëgg bu leen taxa mukk mar bu leen taxa naan ku dee rek loolu la suñu borom dogal ci yow te lu ne laaj na ay sacrifice dem leen ba jeex kenn du yëkkati ngànnaay jubale ko ci yëwut yi di arrière bu leen teggi tànk bu leen arrière metti na waaye wéyal leen incha allahu yàlla ànd naag yéen incha allah yàlla ànd naag yéen dara du ci fekk ku ci dee ren kee war a dee waaye yëwut yi moom bu leen ne may fuñ fekkee na reyante bi tar guddi ak bëccëg donte ñu ngi bombardé bu yàgg dañ tegg seeni loxo cabinet royal bu Jordanie buur ba di Abdullahi II démb jokkoo na ci wàllu téléphone ak président États-Unis d'Amérique muy Joe ñu ngi doon waxtaan nag ci yan euh, jéego la ñuy gaawal def ko ngir mën a teggi jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi am foofu la ci gox ba maanaam song gi nga xam ne Iran song no ko ki nga xam ne mooy Israël ñoom ñu dañuy dox ay jéego pour mën a wàññi li nga xam ne moo mën a jur foofu ci ay jafe-jafe ba léegi bi di Abdoulaye II ñu gën ko xam ci Malik Abdoulaye Sani ci jokko gi mu jokko Joe Biden daal di lay wax lépp loo xamante ni jàpp na ne mën na andi foofu jafe-jafe ñu daal di ciy jóg ni ki noonu tamit ci beneen wàll démb seetlu nañu njeexitalu màbb ak yàq goo xamante ni ñi nga xam ñoom ñooy yahud yu dëkkal ci bérébu palestinien yi def nañ ko ci moomeelu palestinien yi ci dëkk bi ñox dooma ci ndey jooru Nablus ci si Jordanie li gën a fes démb te fes ci terrain bi démb ci suba ba ci waxtu bi nga xam ne maa ngi koy wax ak yéen moo gis nañu wàllu ay song ak ay sànni ay sox ci càmmoñ fi nga xam ne mooy chimal mu xayam yahud yi ñoo fa jaar démb gis nañu ay kër yu ñu taal yëfut ñoom ñoo fa jaar démb gis nañu ay hélicoptère yoo xam ne ngay ubbi ay safara daal di koy jëmale ci fi nga xam ne mooy muqayam ya nekk Nasara waaye démb gis nañu yenn jàmmaloo ci diggante jullit ak yëfut yi jàmmaloo yoo xam ne yu tara tara la doon am démb mu nekk foo xamante ni démb daanaka njaq luy baax la wala boog cin luy baax la démb fenn seddul ni Iran di laal ci kaw jàmmaloo bi ñu woon ci suuf démb na mu jaaxidoon yi joxante nañu loxo carrément ci ba gis nañ fa ak njàmbaar gu fës a fës a fës goo xam ne dem nañu ba ñiy tuddee Hamas démb muy Kataibul Qassam maîtriser terrain bi dëgg dëgg dëgg nag ba nekk fana di fa teg ndawal ak di fa teggi ndawal ci jàmmaaloo gi nga xam ne mu ngi doon dox ci diggante góor ak góor waxuma jàmmaaloo goo dox ci diggante góor ñi ak jigéen ñi ba na démb métti woon na lool lool ba xeex bu taratar la woon te xam nañ ne loolu dana gën a wéy tey di am ndax gaw ma ne mbir mi dara mën na dina ko jeexal du dul rek joxante ba kenn ne mekku nañu démb sànni ay jumu safara yoo xam ne yahut ñoom ñoo ko doon def di ko jëmale ci lim boo xam ne defuñu waxuñu mu nekk lim boo xamante ni ñoom ay ñoom tuddee ay citoyen muy maanaam ñoo xam ne xeexuñ ñu gis ne yahut doon nañ fa tëmbal ay safara rawatina ci mbedd mi nga xam ne moo lay tuddee boulevard nekk ci sow mu xayam niki noonu tam gis nañu démb li tuddee euh, ci su ci suufu mufti min muy maanaam béréb bi ñu xam baraj ay bara dem mu sànni foofu tamit ay jum ci fi ñu tuddee ardu mufti ni ko noonu tam dem gis nañ ay hélicoptère quad yoo xam ne ay hélicoptère di sànni ay jum di ko jëmale ci nga xam ne ñoom xeexuñ foofee ci càmmuñu mu xayamu jadik loolu lépp yahud yi ñoom ñoo ko doon def màbb nañ fa këru njabootu abu ato bi ci mu xayamu jadid bay daal di koy yàq màbb nañ fa jàkk ji ñu tuddee masjidul qisam ci benn missile buñ fa dóor ni ki noonu tamit seeni avion yi ñoom yahut yi màbb nañu jàkk ñuy tuddee masjidu xasanal bana ci mu xayamul jadid mu mel ne limba mu ngay gën a alawtiku ci doomi palestinien yi wax nañ ko léegi lu tolloog ci fanweeri junni ak ñetti junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ña ngi ci ñàkk seeni bakken mu mel ne nag loolu lim la boo xamante ni kenn mënu koo euh, euh, te lii may wax ni ma ngay am ba démb ci dimanche bi lim ba mu nekk ñoo xam ne depuis la 7 octobre ak léegi mu nekk lim boo xamante ne alawtikoo fi nga xamante ni moom mooy doomi palestinien yi te nga xam ne ñoo ci gaañu nga xam ne ay blessé yegg ci juróom-ñaar fukki ak juróom-benn junni ak lim boo xam ne bu teg la. mekku nañu ne démb def nañ ñuy tuddee majjisar muy rayu mbooloo ci wala bokk ray boo xamante ne wala bokk ay sox yoo sànni ay famille lu ma loog lu tolloog ñeenti famille démb mu mel ne yahud yi sànni nañ fa ay jum waaw nit ki noonu ba tax na tey limu ñi nga xam ne tey ji ñoo loru ci loolu te nga xam ne day ñu ba léegi nekk ci suuf ak yenn yoon yoo xamante ni daanaka ambulance bu mënuñu fa dem société civile yi mënuñu fa yegg kenn xamul mu toll waaye ni ko doon tamit démb jàmmaloo bu taratar ci diggante jullit ñi ak yexuut ñi loolu tamit jàmmaloo boo xamante ni gis nañu tamit ne jullit ñi ñoo fa am ndam tey saa ñu jàkkaarloo noonu lay demee nga jël beneen journal bu tudd Eile Irshman moom journalu yexuut yi la mu wax ne ñu bari ñoo xamante ni démb ay njabootu yoxut lañu taxaw nañu gàddu seeni pancarte di jooytu ak di taxaw ak di dagg ak di dagg yoon yi nga xamante ni moom moo jëm ci Tel Aviv pour que taxawal li nga xam ne moom mooy guerre bi nga demaat ci canal 14 bu yoxut yi cabinet Israël démb ma ngay saxal benn song goo xam ne nee na dina ko song démb la ko wax ne ci guddi gi la ko daf song ki nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moom mooy Iran nekk noonu gis nañu beneen wàll ci muy xeex boo xamante ni xeex bu xeex la boo xamante ni dina am ci diggante yahud yi ak waa Hezbollah ñu naka jekk ak wa Hamas ak ñoom naka jekk ñi ñu jéem a seet naka la seet ba xeex boobu xam naa ne yahud yi moom comme ni ñu ko waxee woon foofu la ñuy gën a intensifier seen sombu léegi mooy Hezbollah loolu moom lu c'est évident. kon leeral ne xeex bi fañ ko teg jàpp ne Hezbollah la ak Hamas rek ak ak waa waaye mu ngi nekk diggante Iran di réew mu mag war a jàmmaloo ak ci nga xam ne moom mooy yahut yi ñu ci beneen wàll ki nga xam ne moo jiite commission des affaires étrangères bu Israël maa ngi wax ci Skin News ne Israël dana dal ci kaw Iran te nee na buy dal dana ko def ci ay béréb yu wuute te nee na loolu dana metti lool ci kaw Iran ci beneen wàll ñu gis secrétaire général bu Nations Unies muy wax ne foofu ci gox boobu di proche ba sori ah, ñu ngi ci catal kàmb gu xóot goo xamante ne jot na gaaw ñu génnee leen ci yeex nañu trop trop trop ndax nee na yëf li muy laaj moom mooy li ñuy tuddee ànd ak sa sago mu ne léegi nag jot nañ ñu sori bépp jëf goo xamante ne dafay gën a tax jàmmaloo ga di gën a yaatu foofu ci Proche-Orient na ku nekk jël say responsabilité ngir ñu mën a taxawal xeex bi ci ni mu gën a gaawee niki noonu nee na ñi dëkkee ci gox boobu Proche-Orient ñu ngi jàkkuwanteeg jafe-jafe yu méttee yoo xamante ni dara yóbbewu leen ko lu dul rayante gu jeex mbokk yi fi ñuy jeexalee bulletin bi mooy ñu ngi bégal képp koo xam ne soppe la ci xamal leen ñii tuddee Kataybul Qassam wax dëgg yàlla tey lañu gën a am taxawaay fa tabarakallahu daanaka boo doon nekkoon sàppe da nga naan ñu ngi ca ci xeex bi ca càmmoñu ak digg fi nga xam ak ndeyjoor fi nga xam mooy Gaza ñoom ñëpp tey ji tey lañ gën a taxaw buñu ñu deewee shahid tey lañ gën a taxaw ci dëgëral seen bopp tey lañ gën a taxaw tamit ci xeex boo xam ne xeex bu tar lay doon ni itam si le plan politique tamit tey lañ gën a taxaw donc kon li am solo rek mooy ñëpp nañu xam ne xeex bi ma ngay gën a dëgëral taxawaayu doomi palestinien yi nga xam ne duñu mas a jébbalu ci lu ñàkk fayda rawatina yenn condition yi leen bëgg a tegal nga xam ne bu ñu ko accepté naam jàmm dina am waaye jàmm ju waaye di lay doon ni ko noonu tamit gis nañu ne ñeneen mujaahiduuna yi ña ngi xuus ci xeex bu metti a seq ko ñi nga xam ne ñooy yahuut yi kon mbokk yi foofu la ñuy taxawoon di ñu xam ne loolu mooy li gënoon a fës ci téeméeri fan ak juróom-ñeent fukk ak benn muy diggante ma nga ca mëññam te mooy wóyal li nga xam ne mooy ay rayu ñoom la ñu koy tuddee majzar wala génocide Iran dóor na li muy dóor et eh, Israël na bu baax pour jéem a seet naka lay fayoo ci kaw loolu Abdoulaye II mi nga xam ne mooy buuru Jordanie jokkoon ak Biden pour ñu mën a seddal yëf yi waaye nit ki noonu tamit Arabie Saoudite ñoom itam ña wax ne mbir mi dafa war a sedd balaa moo jur ay situation yu kenn mënta wax waaye nit ki noonu tamit ñu ngi gis ne feebar yaag jàkk yu màbb yaag musiba ya tey la gën a dolleeku biir Palestine kon daal ñu xam ne foofu dara seddu fa ñu dolli ñaan ñaanal leen jàmm ñaanal leen sutura yàlla dooleel leen kàttanal leen ba li nga xam ne moom mooy li am solo rek yàlla dimbali leen boo ko defee ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñu di baal ñëpp ak leen baal àq waaxir dax alhamdulillahi rabbil assalaamu aleykum wa rahmatullahi dumtum bil xayri ya ixwaan